الذي عالمي لا كريم عليم معلوم يزيد شكري بأقلامي وقلبي وجسدي لمن كان لي بالجود وهو شكور نزولي وتعيدي ويزيل الرداء من الواسع نسير أميري لدى سيدي ومكسي وسيلتي خديما له وهو الخديم يبير ziar kenn ku ci nekk sa tur ak sa sant di ziar waa sama mbokk alpulaar yi waa Njogob ñu ngi leen di ziar bu baax a baax sama papa yi ma fekk fii di gis taxawaay bi taxawaay bi rafet na lool wax dëgg yàlla li moom njukkal njukkal njukkal bu mag la delloo ngeen njukkal bu baax a baax a baax wane ngeen ñu daal ne président Abdoulaye Sylla seen doom la seen seen rakk la seen lépp la wax dëgg yàlla rafet na lii lañu ñu yónni te lii la soxla gëm na ni lii nga xam ne nii parrainage bi nga xam ne jël nañ ko fi électorat boo xam ne nii dina ko mën a accompagner incha allahu ba présidentielle yi te loolu lañ soxla moom nee na soxlawut am njàllaxaan wala loo xam ne nii ay naxaate la wala ay caaxaan moom li mu soxla mooy lu sérieux loo xam ne nii daal wax dëgg yàlla dina ko matal ndëgër lay ba fi nga xam ne nii yéene na ko àgg yéene na fa àggal askan wi mu àgg fa ci ci ci ci jàmm lii moom ku gis taxawaay bi gis mobilisation bi ngeen def xam ne lii doy na doy na doy na tawfeex daal wax dëgg yàlla lépp lu ñu fi jël ci ay parrainage tamit dal na xel te lim ñuy faral di dénk rek nee nañu boo demee ci population bi porter leen projet bi wax leen projet bi taataan seen i bëgg-bëgg ñu ànd ak yéen ngeen ànd ak ñoom ci dëgg ndaxte dëgg daal mooy mooy njëkk te mooy mujj ñun lool lañu nàmpatal ci loolu la ñu ci loolu la ñu ci yoon woowu lañu ñu la ñu teg ba tax na ñun ay ndawam lañ mënuñu lul di dox ci bëgg-bëggam yooyu noonu mu ñu bëgg dëgg yàlla lii ñu fekk fii moom dal na xel dal na xel bu baax a baax a baax te ay si la dégg na message yi ngeen fi jàllale bu soobee yàlla dinañ ci taxaw bu baax a baax a baax incha allah rabbi bi ñu tàmbalee liggéey bi ba léegi ñu nekk équipe bii nga xam ne nii duñu sonn duñu tàyyi ñoo ci ñoo ci ànd di ci liggéey amal ci ay liggéey yu am solo nag tàmbalewuñ li ma faral di wax rek ñun tàmbalewuñ bi parrainage yi commencé ñun dañoo commencé liggéey ci terrain bi moo tax na bi parrainage yi ñëwee résultat bi day feeñ moo tax daal liggéey de terrain daal moom mooy liggéey bi te ñun dañ koo dañ koo tàmbalee ci lu lu jiitu parrainage bi ba tax na résultat yi moom mi ngi nii bu ñuy xayma ci région de Diourbel ak département yi ko ëmb yëpp commune yi ak commune d'arrondissement yi liñ fi xayma ci ne am nañ ko fi ci ay parrainage toll na ci cinquante six mille parrainage yoo xam ne nii mën nañ koo compter bisub tey bii di la 31 octobre mën nañoo xayma cinquante six mille parrainage yoo xam ne nii moom mi ngi ci suñuy loxo yoo xam ne ni wax dëgg yàlla dinañ ko trier suba incha allah. commission bi nga xam ne nii ñoo war a première collecte yi demee dinañ ñëw incha allahu rabbi ñu jëbbalal li nga xam ne ni jot nañ koo collecté ci ay parrainage jox leen ko ñu yóbbu ko ñu ñu dëgmal dernier dernière semaine yi mooy trois dernières semaines yi ñun daal ci gàttal daal fii ak deux semaines maximum incha allah bëgg nañoo tënk parenage yëpp ba jébbale ko. xel daal la ndaxte Ablaye Sylla moom projet bi muy Sénégal la koy portel ku wax euh, consommer local. wax fexe ba ndaw ñi liggéey ndaxte li muy faral di wax rek nee na am dëkk boo fexee ba réussir ñaar yi dëkk ba dana neex boo fexee ba jigéen ñi am xaalis dëkk bi day neex boo fexee ba ndaw ñi am liggéey dëkk bi nekk en sécurité loolu nag nga xam ne mooy ay mbébétam moom ku ne xam na ni ci lay dox ku employé 2000 Sénégal 2000 Sénégalais direct emploi direct 2000 personnes muy ñu yeewoo ci ci ci réew mi di dundal ay famille ak ñëpp ñi nga xam ni seen war sax xaj na ca kooku bu ne laa mën naa fexe ba ndawi réew mi yëpp liggéey xel war na caa mën a dal ba tax na ci loolu la nekk. moom moom moom moom li muy faral di wax rek moom nee nañu wax dëgg yàlla wax ji moom jarul ñu ciy tontu ñun jëf daal moom daal ay mbiram daal moom firnal na ay mbiram moom ay jëfam firnal na ko wax dëgg yàlla moom ay wax ak ay détails moom wax dëgg yàlla yooyu moom nekkut nekkut foofu. ndaxte moom li muy def lu concret lay doon loo xam ne Sénégal yëpp dañ ciy teg seen bët képp ku mën li muy def nag defal ku mën a créer entreprise bu nga xam ne nii daa day day xëccoo waxuma la sur le plan national de waaye sur le plan international képp sénégalais bu ko man defal ni moom moo gën wax jeeg wax ju sew jeeg yooyu noonu ba tax na daal képp koo xam ne nii mën nga li muy def mën ngaa nat sa bopp ni moom defal lim def ndaxte bu oo oh, sénégalais bu bu ñu amoon ñetti sénégalais yu def ni mu def jafe-jafe yu bari dina fi jóge ñun foofu lañ toll tolluñ ci période wax wala tontonte wala wax ju sew ñun nekkuñu foofu ñun ci jëf lañ ne li ñuy faral di wax rek oto bi ci ginnaaw mooy corne waaye bi ci kanam moom doo leen ko dégg mukk mu klaxonné. maa ngi tudd El Hadj Ka chef village bu Ndiogop. diggante Ndiogop ak Touba maanaam Ndiogop mu ngi nekk village bu toll ci penku Touba. Euh, distance bi war na nekk ay euh, onze kilomètres ak Touba. Euh, ki nga wax turam muy docteur Silla suñu diggante du xarit doomi ndey la ah sama diggante ak docteur Silla weesu na politique jóg na tey pour ñëw fii tànki politique mais loolu lu tuuti la ci fas nañu yéene nag incha allahu rabbi ñun ak moom ah. ba ñu yóbbu docteur euh, ba ñu yóbbu Ablaye Sylla euh, palais euh, président de la république incha allahu rabbi te loolu la ñu ñaan yàlla tamit waaw waaw ndax ñun xamuñu kenn ku dul docteur Sylla te bu ma ne wallahi du ma lakk fii munoo fi gis kopp acité bi jar vingt cinq franc bu jóge ci gouvernement munoo ko fi gis waxuñu nag waxu mooy électoral wala euh, déplacement wala nangam nangam déedéet ñun docteur Sylla lañu xam ah moom la ñu gis ah te incha allahu rabbi fas nañu yéene jàppale ko ci baatin ak ci saayir miɗen ɗumen salmina miɗo on du'ono ɗe kosɗe ɗe mbaɗɗon hannde gimmiɗon garɗon ɗo sababu mm, am min mingel mon ɓinngel mon e sababu sehel men giɗo men docteur silla yo allah yoɓon moƴƴere nde ya barke annabijo mouhammadou on jawanim on jawakim deko min min woni minguel moon ɗum noon yo allah yoɓon moƴƴere a barke annabijo mouhammadou silla noon koko ɓiyum woni uh, lamdotoɗo lesdi ndi en piɓi enne noon jagguirande ɗum ene mbawɗen ɗum jagguiran foof ɗum noon siko docteur silla si allah nawtima mbiya euh, ablaye silla si lelima yo ɗana yo ɓerde mum ɓuu butedde no nelew no kolam sedda guyi inchallahu rabbi han paale rek allah addi ɗum a galle gila gallalol fa guyanaɓe ha ɓulli beeli ha suran ha lumbi daada ha ɓogo allah addi on ɗo ɗoɗo alhaji ha buwel ɗo galle jibi sik duware e woni sababu o ko alhaji muminato docteur silla docteur silla noon hina wayno ko ɓiɗɗo yummen hina wayno ko ɓiɗɗo bammen hina wayno ko sehli okki en ko gandanɗa ɗen jaahi duuɓi capanɗe jeetati eɗen ɗum kori dañ ko ɓogo tan a bayla tan e darma hakkere e daaru marna en e kamɗum tan woni ɗo e guy mbam allah waddi ene mum noon kala ko wino en ko layatno en foof allah holli en ɗum ɗum noon yo en jettu allah jetten ɗum eɗen ɗum jettano feewi kama ɓesgum e sukaɓe mum e saabu noon siko immima ari e wonde ɓiyum wi en ɗum jagguinare en mbawa jagguiranmo wona docteur silla saabu kam waɗi jiiɗen kam holli en yiɗani en totti en jiiruɗen guite men en ñaaguima allah docteur silla yo allah ɓooyni ɗum ɗo eyyi ko ɓiyum o sohli ko yo allah waɗ ɗum en ñaaguima allah ahmadou bamba seigne muntaka cheikh sadibou diga cheikh aljuma ba yo allah naɓ ɗum paale yo allah naɓ ɗum paale a bokkoye ma ngi leen di man sérigne ka ma ngi leen di nuyu di leen gërëm leen sant <coughs> fii allah ji jaar rek mboole ñi fi nekk mag yi ak gone yi ñëpp ci seen kàddu laay wax ñu ne docteur Sylla sant nañ la gërëm nañ la bugg nañ la ñu ngi lay ñaanal yàlla fan yu gudd te lépp loo bugga ci nguur gi yàlla na ko yàlla def barke Sëñ Muntaxa barke Cheikh Saïd bu diigaan barke Ahmadou Bamba <coughs> ndax li tax li ñu doon nax suuf bu di dañuy nax nax nañu nax nañu nax nañu bi sonn yàlla def nag Sylla yow nga ñëw fii nga ñëw fii nga jëf sa alal jóguñu nga buggañu boole ñu sa bopp li nga ñu wakkoon lépp ñu gis ko ñu ngi ñaan yàlla ak Sëñ Tuuba ah xale bi Ablaye Sylla yàgg nañ bugg na fi ñëw yàgg nañu soxla na fi ndaw am ñëw waaye tey la ko yàlla def délégation yii fi ñëw ñëpp jox nañ ko bopp ñu ngi ñaan yàlla yàlla na yàlla guddal fanam lépp lu mu sumb yàlla na ko yàlla yeggal pale rek pale rek ñaan nañu yàlla na dem pale te maa ngi kontaan tamit ci seen ñëw fii ndax xam naa ne daj woon nañu fii beneen bés budul bi te xam naa ne am na gis nañ ci avantage boobu ba tey ndax daj woon daje woon nañu fii di soxla ndox yàlla dogal ndox mi ñëw na fii bi mu ngi walangaan ñu dajewaat fii pour sant ndax ndox mi fi ñëw kon nag bu ngeen ñu diggee leneen lu dul ndox tamit dinañ ko gém comme que diggoon ngeen ñu ndog yàlla dogal gis nañ ko bu bu ngeen ñu diggee leneen dinañ ko dinañ ko gém ñun nag ñun ñëpp ñoo ànd doon benn ñun ñooy keccandoo di doorandoo ñun ñun góor ak jigéen mag ak ndaw goyenaabe njogob gàllalool surang lépp mënumaa lim waaye ñun ñëpp benn lañu te ku kii kii jublu day fekkee moroomam fala la jublu maanaam ñun ñëpp daal benn lañ moo tax bu ñu jàppalee nit yàlla mun naa dogal mu am li mu bëgg tamit euh, bu ñu bu ñu waxee waaw daal wax nañu waaw bu ñu waxee déet wax nañu déet te ñun ñëpp nag wax nañu waaw ñun ñëpp dañoo booloo ñu fas yéene jàppal docteur silla